أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokk yi nii seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay mënti nekk rek ñu ngi lay nuyu bi gën a sell tey ñaan sunu borom tabaraka wa mu may nunu yendu ci jàmm te fanaane ko di ziar suñu kilifay diine yépp nag di ñaanal kilifay aada yi di ci jiital ki yàlla teg ci boppi réew mi muy son excellence la président Macky Sall ba ci ki gën a suufe kenn ku ci nekk lépp lu ñu la jox pour defar réew mi yàlla na ci yàlla jàpp yow min ko joxit nga jàpp ci waggar ko ba lépp sotti senegal jëm ca kanam di ñaanal ñi feebar yal nañu wér ak jàmm di ñaanali sunu bokki sénégalais yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi tabaar fa kàll fekk leen fa te teraanga tax leen jóg yal na leen yàlla sàmm musal leen te ngeen dajee ki xéwal yu yaatu bee ñibbisi ñu toog nag tabax suñu réew di sant yàlla bu baax moom mi nu may ñu dellusi di ko santaatit li mu nu def ñu dëkk ci réew mu baax mi di senegal eh, di dellu di ziar bu baax Cheikh Mahi Niass Cheikh Mahi ñas xam ngeen nii euh, bis ni talaata bi paase moom lañ dalaloon ci waxtaan wu am solo woowu ndax Cheikh Mahi dëgg-dëgg ñoo ngi ñaan yal na yàlla guddal fanam ndax euh, mag ñi dañuy wax naan mag naa ba cim réew waaye mag mu baax moo tax ñu koy wax moom ci mag ñu royukaay yooyu ci la bokk ci woyof gi ci humanisme bi ak fonk gi mu fonk doomu aadama xam nga ku dem ba nekk doomu seexal islam police ramasse la <laughs> waxoo dara jàppe sa bopp citoyen simple te du citoyen simple de déedéet am na leneen lu yàlla def ci moom dem ba egg police ba ñu leen di entendre mu soog ñu ne ko kuy sa way jur mu ni Cheikh Ibrahima ñas ak soxna Astou Sarr waa ji soog koo bàyyi naan pour auto police bi na ko yóbbu mu ne ko déedéet man dootuma dugg auto police dem Gàmbi ñu ramaas ko an mu ànd ak nit ñoo xam ne wata ba ñu yor amuti këyit ñoom yoru ñuy këyit ñu jàpp ko bi ko waajee laaj koo xam ku kuy sa papa mu ni Cheikh Ibrahim Niass ak kan mu ni Soxna Astou Sarr mu ni ko koo xam ci dëkk bi mu ni ko président assemblée national ba santoon Diack moom la ñu woo loolu xam nga ni njàngale la moo xam ne nit day dal nit dafay war a dal di bu baax alaaji yaat ma deer ca njamb faal euh, alaaji yaat ma deer dafa bokk ci mag ñu baax yi ci réew mi ba ma ko xamee yàggut waaye li may wër ci doomu aadama gis naa ko ci moom euh, demoon naa sax ci ñaanam gi le samedi passé tabaar fakal la ndax man képp koo xamante ni loo am defal ko bokk kook say bokk def na boole naa la ci samay bokk ku mel ni Aliou Lo moom it ñoo koy ñaanal yàlla gën ko taxaw ci bëgg gi mu bëgg réew mi ba saa yu lu nar a yàq Sénégal Aliou lim ciy def kenn xamut nu mu toll parce que am réew boo fa dëkkee da nga koy bëgg da ngay bëgg lu ko defar e ñaan nag waa Sénégal man léegi li ma jaaxal moo di dangaa yor li gën ba pare ñu bëgg la koo bonal man mënumaa dégg Sénégal baaxut mënumaa dégg Sénégal doxut mënumaa dégg Sénégal yàqu na déedéet mënumaa dégg yooyu yépp am na lu fi yàqu mais c'est cinq pour cent nañu yaraat sunu njaboot yi mais réew mi léegi <laughs> boo koy seetlu dëgg-dëgg man dama tiit ci lu neex nit def fi te du mujj fenn loolu loolu loolu du àndu loolu du société loolu du société Sénégal gi képp ku fi nekk nga dégg ko mu naan Sénégal baaxut Sénégal baaxut lu ne ñu di ko wax manquer respect à toutes nos institutions loolu bu fekkee mun leen koo arrêté xam leen ni loolu mooy danger bi parce que am réew ku fa nekk da ngaa war a respecter charte réew ma ak institution yi réew ma loolu ñun ñépp la war mais su fekkente ne Sénégal léegi dëgg-dëgg pour nga am fi tour sax il faut nga nekk waxkatu lu bon il faut nga nekk saagakat il faut nga nekk ab fenkat bu ko defee nit ñu topp la te loolu c'est grave Sénégal dem nañ ba fi mu nii sax xamatuñ ku war a topp ak ku ñu wërta topp mais Sénégal dafa am ay valeur dafa am nit ku nit ñi daan xam ni kii mat na njiit ñu topp ko mais saagakat fenkat workat manipulateur su fekkee ñooñu ñoo siiw ci réew mi ah dëgg-dëgg ñi leen siiwal jaxal nañu ma jaxal nañu ma trop parce que Sénégal baaxoowul li Sénégal politiciens yi fi woon ñu yiw lañu woon ñu daan wax lu baax lañu ñu xamoon fu ñuy yem lañu mais daawuñu defee nii non non non daawuñu defee nii léeg-léeg nga gis benn affaire ci réseau sociaux yi da waaru ci yàlla fen wu ni fang ñu génne ko léegi ay nit daal koy gëm parce que matuñu matuñu mais suñu sene nun lii du suñu réew te lii kat li li muy ñaaw ñaaw ñaaw bari wuñu de daba réew mi ñu fi baax mat nañ quatre-vingt-cinq pour cent ay noobal lañu mais li ñu lakkal mooy lu tuuti lii tey wax lu bon ñenn ñi di leen ci jàppale nag journaliste yi man xam ne am na fi benn journaliste boobu dafa ma jaaxal soo wootee di wax lu bon Sénégal mu bàyyi nga wax ba géex boo bëggee tudd euh, keneen mu ne la noo arrêteel te nit day tudd sa président de la république Macky di ko wax lu ko neex mu bàyyi mu wéy nga tudd benn opposant mun la noo arrêté ça c'est pas du journalisme yow ki nga war a jëkk a mooy le président de la république Sénégal parce que c'est une institution bul fàtte ni 58 pour cent des sénégalais ñoo fal Macky Sall ñoo fal Macky Sall te man ñiy wax Sénégal doxut damaa defee ne xanaa dañoo dëkkul Sénégal wala ban Sénégal lañ ñuy wax man Sénégal bii ma daa wër pendant quinze ans vingt ans tey jii ma koy wëraat fu ma fi jaar dëgg dëgg président bii fi nekk def na fa lool benn président mosu ko fee def ba pare boo boo nee day liggéey sax ñun la noonoo yow da nga ànd ak moom mais man président buy liggéey laa bëgg. ma di ko gërëm di ko ñaanal pour mu gën a yokk man du ma fekk ku jëf ba noppi ma ne ko defoo dara parce que Macky Sall waa ji ni woon Macky Sall deful dara bi muy dem di campagne daaw jéeg mu jël autoroute péage Touba bi dem ba yegg Mbàkke ni président Macky Sall defu fi dara dangaa ngaa waroon a jaar ci xàll yi xam nga Sénégal bu ñu demee ba bëgg a tere nit ñi sax wax wax lu baax maanaam président bi bu ko tudd non non Macky moom boo bëggee boo bëggee boo bëggee boo nu bëggee neex. del saaga Macky la bu ko defee nu naan yaa fi gën yaay patriote yaay nag déedéet yow yaay dof bi yow lañ parce que ginnaaw ku ku ni Macky liggéey na ñu saaga la tey mais saaga yi ku mu teree wax doo doo doo jàmbaar yow pourquoi avoir peur des injures parce que ki lay saaga kooku du nit kooku du nit te léegi am na ñoo ñu bari ñoo xam ne man dama leen di woo sax ne leen kaay leen ma invité leen ndax yow li ngay wax ci réew mi ni mu ne déedéet alaaji léegi boo waxee dëgg ñu saaga réew moo xam ne boo waxee dëgg ñu saaga continuer à dire la vérité te gis nga ñoo ñuy saaga ñoom ñëpp dinañ toog benn bis rëccu seen àdduna tey xam nga lu muy jox xam nga dàbba loolu lu muy jox gone gone guy saagaw mag gone yu gàtt fan la ñuy doon te billaahi naa ko ci alxuraan gone goo gis muy saaga ak mag ci gàttu fan la jëm ak ñàkk wërsëg ak torox parce que saaga baaxul waxuma kilifa sax mais saaga sax saaga sa doom ji nga jur sax jaaduwul waxuma kilifa mais bu fekkente ni yéen waa Sénégal léegi <laughs> saaga yi tax na kenn ñemeetu la wax dëgg mais kooku kooku c'est grave c'est très grave nañ yar suñu njaboot yi ba pare yee leen ñu ràññee mais Sénégalais yi léegi man ni ngeen neexa naxe moo ma def problème yéen daal lu ngeen dégg gëm <laughs> mais c'est grave c'est très grave nañuy teey réew mi ñu civilisé ñoo ko tabax ci politique ci diine ji ci ceddo gi nit ñi fi newoon c'était des hommes valeureux ma suñu yàq senegal suñ ko yàqoon du ngeen ci jot ñi yoroon réew mi bu ñu ko yàqoon du ngeen fi fekkum réew ñu defar ko ba mu baax ñu jox na ko ay ay ay ay nit jóg rek bëgg taal suñu réew mi kenn ku nekk di wootew ay te ñun senegal dëgg-dëgg li nu am damaa defe ne dañ koo xamul waaye wala jàmm jee ëpp <laughs> am na ñu ne da jàmm jee ëpp moo tax ñu bëgg koo yàq waaye ku ci ku ci fanaanoon ci dëkk bu amu ay deux jours boo ñibbisee di nga daw ay wallaahi di nga ko daw wax leen jàmm def leen jàmm yar leen seen njaboot ci ñu xam lu ñu ma ne xale yi bu ngeen xëyee dem leen defi dara dem leen liggéey il faut aller travailler léeg-léeg nga gis genn gone gu am fanweeri ak juróom naan am naa diplôme am naa lii liggéeyu ma man dama jàpp ni ponkal mu liggéeyut danga ngaa bëggut liggéey liggéey am na man liggéey naa 40 ans ta kenn fayu ma weer tabax ta commencé naa cib étage pendant 40 ans. parce que man mënumaa xëy di tëdd te am doole wér dara daluma déedéet je suis pas d'accord mais ñi bëgg a bonal Sénégal laa xamul ñooñu lan la ñu bëgg qu'est-ce que vous voulez finalement réew mi su baaxul ban réew moo baax demel ngeen laaj réew yi nu wër ngeen laaj koo ci waxoon tey jii mun la bu ma sañoon dëkk Sénégal Sénégal am nay tali Sénégal a ngi am courant bu doy Sénégal a ngi am ndox am ngeen ni ba at yee passé rek les émeutes de l'électricité fàttewu leen ko xëy na courant bi lépp lépp matagul waaye tane na bu baax nag sëñ bi loolu nag wax ko bu fekkee boo ko waxee ñu saaga la waxal kii wax dëgg na wax dëgg saaga yi moomoo ko ki lay saaga moo moomi saagaam ndeyam ak baayam la saaga mais saaga wula yow saaga wula te reewande gi dafa ëpp nag te dara defu ko dudul laisser aller état bi yéen a jërut seeni responsabilité fii léeg-léeg nga dégg fi ko wax loo xam ne wër ta fanaan këram yooyu nag boo ko mënta dindi doo Un État ne badine pas avec l'autorité. Non. On peut tout tolérer sauf la désobéissance. Le... Non mais mais c'est grave. C'est grave. yéen bu ngeen yaakaaree ni lii mooy démocratie lii du démocratie démocratie kay wax dëgg yàlla dama yaakaaroon ni képp kuy amub cër ay carte la koy jox waaye du ay xeer ak yet ak i fital loolu armée ko moom mais actuellement danoo bàyyi rek lu neex nit def ci réew mi lu neex nit def ci réew mi loolu moo jaaduwul loolu moo jaaduwul il faut ngeen bàyyi seen yëfi démocratie yeeki droit de l'hommiste katang-katang yi daf ñuy tardeel loo ngeen def lu dul teg nit ñi ci aw yoon ñu yaru ku respecté wul yoon ñu teg la ci aw yoon loolu loolu moo dem réew mais lu ma neex wax fi lu ma neex def fi ah mel ni Sénégal da ngeen ko bëgg a taal te yéen ñëpp di ngeen tàkk ba doonub doom Sénégal di wéy la Serigne Touba waxoon borom ndar ni ko yow mii doo borom ndar ndar ndar yàgg na fi lool te te juddu woo di nga di nga deelu yàgg ndar di am kon ko kon kii borom ndar mooy ki bind ndar di tabaraka wa taala alors kon nag dëgg-dëgg yenn yi man xaw ma lan moo ko waral am dan noo liggéey wala dan koo tëy parce que man am na yu may dégg ci réew mi actuellement xam nga ah, citoyen bu taxaw ba mën a saaga sa président en direct à la te kooku wax dëgg yàlla yooyu yooyu nag dëgg-dëgg c'est trop li ci gën a metti sax léeg-léeg nga dégg koo xam dañ la naan maamam def na fi lii waaye nag <laughs> allahu akbar ah nañ dem rek ginnaaw noonu ngeen ko gisee dangeen ngeen di loi amul masla am matière judiciaire dans les amul benn loi bu am masla loi dafa dëgër de te saa yu àtte amee am ku ku dugg am ku génn loolu mooy mooy loi loi dafa contraignante bu la arrangé nga ni loi am na bu la arrangé wul nga ni loi amul <laughs> xam nga nag dëgg-dëgg ak li ñuy yekk sunu sunu autorité yenn yi xam man bu ma déggee daba nit naan euh, magistrats yi ils sont corrompus man ça me fait mal vraiment ça me fait mal parce que man damaa xam magistrats yu bari ñuy ay om integre gën laa gëm yàlla daq laa jaamu yàlla kenn déggu leen ci dara nga taxaw ni leen ay ay eh, c'est des corrompus c'est pas des corrompus te magistrat yooyu ak soldat soosu ngeen di xas ku demee ni Moussa Fall la général Moussa Fall général Moussa Fall man maa moom a dëkk xam naa ko xam baayam xam ndeyam xami bokkam maamam yépp ku ci dul laman dameel nga 32 dameel yi ngay dégg Kajoor ñu sant Fall ñoo ñoo meññ Moussa Fall général yàgg na këram de général Moussa Fall du def ay bases déedéet il est incapable de faire des bassesses te nit ëpp ko fit te ku ko ku koy xas danga koo xamut waaye nag koo xamut ee eh nga koy woowe mais jërëjëf mon général ci taxaw bi ngeen taxaw manifestation boobu ba dara xewut lu dul jàmm ak salaam loolu la Sénégal baaxoo toog naag yaayam yaayam ni ma keroog bi mu njëkk bi muy jàng bi mu bourse bi mu njëkk am mosu cee laal ñaari dërëm bu fayoo bourse bi ñëw jox yaayam lépp kooku daal liggéey dafa defal ndeyam dara defal Sénégal dara defal ay bokkam dara kooku ku koy xas da koo xamut mbaa dëkkoo ci réew mi kooku maamam moo libéré ji woon Sénégal 1549 ànd ak sans maam ma jataay taal kon xam nga ne yàgg na ma ak général Moussa Fall je le connais très bien c'est un homme digne c'est un homme digne de grace bàyyi leen sunu général bi ngir yàlla ak yonant bi nit boo ko xamul doo ko xas te ñi fi xase ñépp ñoo xasu koo dégg muy xaste yur dara ci lu baax bàyyi leen yàqante bi da ngeen dem liggéeyi xam nga alal léegi Sénégal ni su ko fii amee moo garaaw xam nga bu nit bu demee ba ci saaga rek lay amee ay vues yu muy amee xaalis ça devient problème <laughs> ay saaga léegi ñoo fi siiw saagakat yi fenkat yi dóorlekat yi loolu bu ñu demee ba ñu teg leen dara ci am réew xool leen ñi nii laaj sunu baat léegi ci réew mi rek dabba mel ni population golo fi ne ba golo gu jóg nii jox leen dañ ñu yàpp léegi mais am na jamono joo xamante ni <laughs> buñ ca dellu woon am na ñoo xëy ca wanag wala ñuy nekk kàddu sax duñ ko jël léegi nag démocratie yi nu fi indi moonu dofloo ndax réew mi ni ko sun maam yi tërale woon demeewul woon noonu dañ daan am kilifa gox boo dem am na kilifa koo xam ne bu waxee ñëpp obéir tey ñu dem ba golo ya newoon ca warag wa sax ñooy wax léegi nag ça diir dire dañ yar suñu njaboot yi te yee suñu doom yi te di leen jaarale fañ doon jaarale nit ba mu am jom ba mu am jom waaye nag comme amatoo famille dëgg-dëgg kër goo dem léegi amatul fami ñun ñii ñépp bi ñuy màgg man bi ma juddoo maa ngi fekk sama sama yaayi baay ci biir kër gi sama yaayi baay ngoon gu ne nu toog mu di nu léebal léeb yooyu du woon ay léeb de <laughs> ay leçon la woon yu lay jàngal àdduna am na ci léeb bu ñuy wax sàmba saytaane ak omarum njulli ndeysaan léeb woowu sénégalais ku ko ci mokkal sax dëgg-dëgg bëggoon naa mu yónnee ma ko ndax daf lay won boo dégloo lépp bu baax te yorum xel daf lay wax ni la ki ne ci lu baax ci lu baax rek lay mujj waaye ki ne ci lu bon ci lu bon rek lay mujj loolu dong la waaye léegi comme kër gi amatul famille maam newatu fa nijaay newu fa bàyyi newu fa yaag sa jabar ak sa bon ak i réseaux sociaux ki télévision ki film ak i novelas film yu bon yi léegi Sénégal sax théâtre bi far dafa dafa ñëw far di yàq di yàq ay plateau yoo xam ne ña fa nekk ñii ñu naan ay chroniqueur lan ñii ay anima te duñu dara lu dul ay politiciens encagoulés parce que li ñuy def c'est pas c'est pas c'est pas une presse ça loolu presse ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd foo nii woowee. man Mamour Thiendella Fall laa tudd maa ngi wootee France Marseille. ah Thiendella Fall. waaw. xanaa kër Thiendella nga bokk. waaw. est-ce que Thiendella Ngenar jur. est-ce que est moo jur sama baay. est-ce que est-ce que. waaw. Ah. acca bismillah naa fi ngay wax. ba nettali ne ma ne ma ne ma Thierno Birahim Ndao mës na laa jàpp ndax manque d'autorité bi nekk Sénégal. waaw waaw. waaw ma ne la problème bi manque d'autorité la. waaw. ay baadoolo rek ñoo gérer affaire yi di def lu leen neex. oui oui. waaw mais autorité da nga da ba mu fi amee. Mhm. da xool déedéet yi amu fi woon. waaw nañ dellu fi ñu ne woon manque d' autorité la. manque d' autorité rek la. waaw donc dama bëgg nga ibbi benn thème manque d' autorité bi nekk Sénégal. waaw kay. waaw parce que deux fois trois fois yaa ngi ciy ñëw te ibbi goo thème boobu. Mhm. waaw Sénégal dafa manque autorité. ñi fi nekk ay baadoola lañ defuñ seen liggéey Macky Sall buñ ko sonal dëkk bi nommé na ay directeur de ay nommé na sécurité nationale nommé na gendarmerie général Moussa Fall bi ngay wax. Mhm. ah bokk ci mhm. waaw. bokk ci ndaxte kooku ci deretam ah dafa ci deretam dafa xam autorité te dañ ko war a delloo njukkal hmm. yow ku maamam ku nga xam ne maamam moo libéré Sénégal tey mu nekk directeur de la gendarmerie kooku dañ ko war a delloo njukkal wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ci dëgg-dëgg te am na beneen point bu ma bu ma naqari Mhm. Samba Laobé Fall moom dee moo gën a garaaw deewul ak joor. Mhm. cinquante mètres moo tax mu dee ca gaaru Tivaouane. dëgg da doon eh, tubaab bi imposé ko ne ne ne ko ne ñuy jaay ñu am boutique ci booru gaar bi. Mhm. bu marchandise bi wàccee ñu koy jaay sénégalais yi. du ñu fay impôt moom mu ñëw mu ne ko dañuy fay impôt cinquante mètres la woon. waaw. waa ji dóor ko bal rey ko. Oh, beneen ku sant Sarr. Euh, escape bi moo ko rey. waaw parce que dafa daf ko jekku kële dóor ko bal. escape bi bal mi ngi foofu ci gaaru Tivaouane bi tëdd. ma Samba Sall bi sama papa nekkee commissaire police Tivaouane. Mhm. moo jàpp sama loxo papa jàpp sama sama papa jàpp sama loxo ma nekk xale bu ndaw ñu dem ba ci bàmmeel ba mun nañu fii la Samba bi Fall tëdd. mu nekk ci buntu château d'eau Tivaouane. ca gaar ba ay oto di jaar foofu. ti ah, nga xam ne moo ah, dafa bañ ndax cinquante carré. waaw mhm. ah, Tivaouane doo dégg kenn ku tudd Samba Laobé Fall Sénégal doo dégg kenn tudd ko loolu dafa ñaaw. waaw tey bu ñuy lekk ceeb nekk seen jàmm moo tax. la mhm. ko doon xeex. Mhm. waaw ñoom askanu Faaleen amuñu un mètre carré Tivaouane. amuñu foofu un mètre carré askanu Faaleen. waaw te dañoo dee ñun suñu suñu maam ñëpp dee nañu Tivaouane <laughs> mais Sénégal buñ ñu sonal buñ ñu sonal. <laughs> jërëjëf Fall ah wax dëgg yàlla loolu jaaduwul nag. waaw ñu sant Fall Sénégal moom ah dëgg-dëgg man de ni ma leen xame ay noobal piir lañu muy kër ca Ndella muy kër ca Yacine muy kër Maajoor gis nga Amari Ngoone Sobel Fall maami Moussa Fall mii bi mu naan bàyyi lu tax ngeen di yóbbu galak Jolof fukki at la am mu ne ko lii moo xew te du nun dong Sénégal gépp koy yóbbu mu ne ko su ma màggee dinaa ko dindi ba mu demee lël moo tax lël c'est important ànd ak lu ma téeméeri gone ñaari téeméeri gone yu dëkk Kajoor ñu dem ci àll bi muy def stratégie naa leen bis bu ci kanamee nañ préparé wu dem Jolof ñu rey buur ba Jolof mbaa mu rey nu waaye ak njaam mënatu mënatunoo continuer di ci dund kooku mooy maami Moussa Fall moo ànd ak ma jataay taal sama maam ak man ni na car ndijaayam ak wey na jeng bu ñi moo tax bi amari ngoone ñibbisee 1549 mu dem ñi ngeen takk takku yu ga am ca Massamba Takko Massamba Takko doomam yépp muy Birame Mbengue Khourédia Kouly ma Khourédia Kouly ak ba Demba Khourédia Kouly ñoom ñëpp ay dameel lañu mooy maami Maajoor Fatim Gollañ mi libéré woon Kajoor aussi ci nguur goo xëye gu métti la woon bañ ku la not fii Daouda Demba Khourédia Kouly nekkoon Maajoor Fatim Gollañ moo ko dindi woon moo tax Kajoor di wax naan jàmm am na Maajoor falu na moom la Samba Fall tudde équipe bii ci ci Mbuur Kër Maajoor ak école ba ñu sant faal kenn mosuñoo yàq réew mi ci feccum gi taati neen déedéet xamuñu loolu nobal lañu ñooñu moo tax nit ñi dëgg-dëgg xam nga buñ demee ba baadoolo di xas buur loolu day day métti ku xam histoire day métti lool sax buñ demee ba baadoolo yi rek ñooy xaste léegi quoi buñ demee ba ñenn nit ñi naan jox leen ma réew mi <laughs> dàbb booy boo nga doon candidat ah, parce que gars yi ma gis fii yaa leen tane de yaa leen ëpp ngor ëpp leen dignité te doo wax lu bon poseel sa candidature ma jàppale la man bu dee man a moom sa seef de quartier sax du ma wutuma ko man polit lépp lu jege politique yàlla na ma ci yàlla musal abadan abadan dama koo boccu dama koo bañ ndax meluñu nen gëmuñu len fu ñu amee xaalis képp moo leen tax a jóg ñoom ñépp nag waaw ak yenn journaliste yi leen ciy jàppale ak yenn animateur rambaajkat yi jaxasekat yi fekk réew muy dox di baax nga ni baaxul Sénégal ku ni baaxut baaxoo réew maa ngi suppi ko de yéen yéen a defut dara dañuy wax ñëpp kenn du la ci joxoñ dara ne la lii maa ko def te man Sénégal ku ku ci ñëw ma won la lu bari lu ma def te réew mee ko waral lu baree bari sax sama dëkk sax suppi naa ko parce que dama bëgg sama réew mais yow nga ne ci réew mi dara baaxul di wax lu bon di def lu bon di di dooral nit ñi di xas nit ñi loolu buñ ko bàyyee mu wéy ah lu ñu dal noo ko teg suñu boppa ah. lu ñu dal noo ko teg suñu bopp ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. Mor Ndiaye maa ngi woo souvent depuis Paris di joytu téléphone bu cher. aha. da nga def. Ndiaye de. Ndiaye ba Jolof bisimilah di rafetlu di rafetlu sa liggéey. conscientisation bi ni ni voilà euh, jàpp ko fi ko jàpp rek te muy gerte. Mhm. waaw. ñu gëstu comme ni nga ko waxee rek golo buy saaga gaynde moom dafa fekk muy nelaw wala. Ah, waaw waaw buy saaga gaynde vraiment gaynde da koo war a reejal. <laughs> waaw kay euh, waaye téléphone bi nag moom daa ngi ci ñëwaat teel na trop saa boo wootee trente quarante euros moom xam nga moom man leer la dafay koppar dafa maa jege ah, lool. mais mais yow yow yow say maam yëpp dee nañ ngir Sénégal. man looloo tax moo lay ah, woote. ah yow bu doon million sax muñal yaay. waaw ah, loolu amul amul amul amul bakkanam bu xaalisam demee daa war a tàccu. <laughs> loolu moo tax mu doon woote fii. acca wax ak sénégalais yi. Euh, Sénégal dafa yàgg. Mhm. dafa yàgg trop. Mhm. ay mag sonn ci. dee ci ay askan dee ci. Mhm. réew mi. kenn mënu ko. caxat caxatee. ci ay bëlëfe mun ta nekk. loolu munul nekk. munul nekk loolu la ñu war a dugal seen bopp bi bël dañu bël dañu ba jaar non loolu munul am Sénégal bi Sénégal dafa yàgg ay ay mbannu deret tuuti mhm. ñëw yàq suñu réew ci nii dafa mën ta bi ngay wax depuis sànq maa ngi xool commentaire. Mhm. gis ci ay commentaire yoo xamante ni. Mhm. wax kenn du ko wax sax ci wolof ba koy wax ci penc. wanag wanag wanag am na yoo xamante ni kenn du ko foox parce que jaam yi danañ la dégg dana ci gannaaw wanag. ñu ci ko wax. Euh, fii nag moom euh, ñun dañuy jël suñu responsabilité. dañuy jël suñu responsabilité. ci réew mi àndunoog Macky Sall. àndunoog opposition waaye réew mii moom. barki borom Touba kenn kota. ma euh, loolu mënul nekk sax. ñu ko jéem a def seen bopp. wallaay booy boo di ci daal seen xel réew mi ku bëgg taal di nga dóom dégguma ma ku bëgg a taal réew mi di nga doonub dóom non du ñenn ci dóom dañ lay defaral bagage dañ lay man Medina ga ma dëkk mhm. kenn dootu fa daj bi mhm. dootul am nga Bamba Fall maire Medina moom sax bu fay manifester bii dañ leen doon xaar moom sax dootu fa daj kuy daj nga dem daj bi fa nga dëkk mhm. wax dëgg yàlla nga dem daj bi fa nga dëkk demal daal woote nga woote sama dëkk nga yàq ko. koo gis nag muy yàq ci dëkk ko ci ci dëkk bi di saaga ñi mais mais man dama jom euh, dama sax waaru. mais saa dama gis émission ñu koy bay bayal. ma xam nga maa fi woote woon bi ñu jàppee militaire sénégalais yi fële ca Casamance. Mhm. gis ñuy tàccu. Mhm. armée Sénégal dal seen kaw ñooñu doon tàccu naan lu tax ñu def. léegi ñooñu ñooy génnaat naan rebelle kenn jàpp leen ci manifestation yi te porte parole gouvernement bi am na ñu ñu jàpp kenn ki trente et une personnes la àndaloon keneen ki ñoo ngi ko jàppee Grand Yoff Petit Mbao Grand Yoff ñoom ñooy génn encore di ko weddi waat mais ñun ñii bañ gi ñu bañ seen réew ma laa xamul ñu lii nu mën a nekk. ah mais lépp dina leer. dafa ëpp non dafa ëpp. léegi maa ngi bëgg de. ñi war a jël seen responsabilité ñoo ko war a jël parce que euh, réew mi nag ñun suñuy maam dañ fee dee sama maam ñu gàddaay génne ko dëkk bi ma nga doosu tëdd te gendar gay sama ndey dëkk lu leen tubaab def na leen ko te musuñoo tàqal kook seen diine ak seen ngor léegi ay nit bëgg ñëw salaamaaleykum bëgguñu bël de bëgguñu mais loolu ñoom ñoom dañuy font rek moom tax ne ay ñoo xamante ni seen jikko seen jikko jaam sax du ko yor jaam mhm. parce que nag am na ñoo xamante ni gor bu la dalee ba borom tubaab da ngay dem làqati bi dootoo génn ci mbedd mi di wax te saa yoo génnee di fen ki may waxal ñëpp xam nañ ko ñi ànd moom ñëpp xam nañ leen du ma pointer du doigt parce que voilà télévision lañ nekk mais nag sénégalais yi da nga bëgg ñu dugal seen bopp yi ndax gis nga fi réew mi toll nii fi almet ko seto dëkk bay ne jëppët te ñoom ñooy dee ñoom ñoom ñooy dee comme pardon yi nañ daan deewee ñoom ñooy dee garam yeeg gor yi continuer di dox ci kaw suuf si nii loolu rek laa bëggoon wax. jërëjëf Ndiaye général Moussa Fall moom ku ko yeb wala ko gën a ndaw daal laa bëggoon wax. jërëjëf voilà. jërëjëf waaw kii de ay bokkam yu baree baree bari dee nañ ngir Sénégal seen deret la ñu suuxateet suufu jolof ndeysaan Alboury Birame Penda Ndiémé bàyyi buuna keroog ba ko tubaab bi ne jox ma buuna ma dugal ko école Abel Cànde mag ko waxoon ca guddi ga lañ ko rey te bi mu ko bi mu ko ko waxee bi mu ñëwee ci maami Alburi da ko ni génnal dëkk bi Alburi bi nga ko nee jox ma buuna ma yóbbu ko école des fils de chef ni kanam gi mel gis nga ko génnal dëkk bi dalay rey de waaye ndeysaan xam nga Alburi ñu bari nag xamuñu ko Alburi amoon na jàkka daan na noddal boppam ab jullit piir la woon ñu jël ki ci ligne bi salaamu aleykum maaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi nga tudd ak foo nii woowee maa ngi tudd Ibrahima Diallo. ah maa ngi dëkk maa ngi wootee Allemagne. acca Ibrahima bismillah. waaw dama bëggoon participer rek ci émission bu am solo bu ngay def. acca bismillah. waaw gis nañu waxtaan na solo mhm. mag moom mag naa bàyyi cim réew. Mhm. bu dee mu baax. waaw. te sa nekk suñu réew moom taw féex la nga neel rek parce que dañuy jàng lu bari ci yow daal ci say waxtaan. jërëjëf Ibrahima. waaw mais comme niñ ko waxee rek moom suñu réew mi fu mu toll nii moom ci jamono yi nii moom. Mm-hmm. dëgg yàlla dafa jaxasoo tëggantar. Mm-hmm. maa ngi dégg léegi ci sa waxtaan nga naan am na benn buur boo xamante ni bañ leen nootee. Mm-hmm. dañu dafa xëy ne dañu takk jaaj yi dem. yaboon nañ ñu rey sax waaye duñu dund ci jaan. waaw wax nga ko léegi. Hmm. ñun nag suñu réew. Hmm. foofu lañ toll. dëgg la parce que sooy seetlu Sénégal. Hmm. man boo fa juddoo samay maam. dépense la ñu daw ba dee. samay sama pap daw dépense ba dee. man maa ngi daw dépense ba dee kenn du denc ci banque amul. da ngay daw rek. te Dubaay sooy xool cinquante ans ci ginnaaw. ñun ñoo leen gënoon demin. te waa Dubaay. or euh, pétrole rek la am te suñu réew am nañ pétrole am nañ gaz am nañ lépp te Dubaay tey sooy tudd réew mu gën a développé ci àdduna da ngay boole da nga ciy boole Dubaay te lu am suñu réew ñu ñoo leen ko ëppale fuuf amu ko. wallaahi wallaahi te cinquante ans ci ginnaaw Sénégal moo gënoon demal Dubaay. waaw kore kore loolu lépp lu ko waral mooy ay njiitu réew yi nga xamante ni. ñoom seen askan taxul leen jug seen bopp moo leen taxul jug. ñun ci lañu nekk. et réew yooyu dañoo amee ab yar ak i teggin. waaw. waaw yar ak teggin yooyu nag yaree di ko man daal li ma yéene ko gis. Mm-hmm. réew maa nga yàqu. développement àndut ak désordre. déedéet àndul moom. àndul déedéet àndul benn yoon waaye développement. Mm-hmm. fii léegi ñuy jiital. Mm-hmm. fas yéene wuñu ko développement mënul am. non moom kay la. lii moom wax rek tegale tegale bu am benn génération bu ñu sacrifié. mooy li ñoom lañ doon defoon ak ñoom Albouri Ndiaye. Mhm. ak ñoom Maba Diakhou dem sacrifié wu. rey seen bopp pour ñii ñëw. waa Sénégal ñun foofu lañu toll. Mhm. foog ñu rey ñu li nga état Macky bi il va nous tuer pour suñu dëkk bi développé. parce mhm. suñu seetaane nii bu mu jàmm dina sax ba faw ba ilaa yow mi diin. ñun nag ay jeunes lañ ñun ñoo fii Europe. o naa tous les moyens mu fekkoon lekk naan rek ak suñu po suñu njaboot mën nañ ko gérer. Mhm. mais loolu képp ku koy doxalee biir Sénégal. Mhm. doo nit ku baax jaam nga doo jullit. wallaahi Sénégal il est temps que la jeunesse se lève. Mhm. ñëpp taxaw jël seen responsabilité. état ab Macky Sall moomu ñu jur mu dund ñu. pour ñu développer foo waa Sénégal ñëpp génn taxaw ci tali bi biir noo. à la, au régime dictateur de Macky Sall. voilà un point c'est maa ngi jégalu nag su fekkee dama wax ak xol waaye dama gis loolu am Europe te ñun ñu war ko mën a am Sénégal te amuñu ko fa. nit day xëy doo lekk doo naan am problème bu ñaar fukki dërëm fii nit soo fekkee sax ci kaso bi nga dëkk nekk bandi bu gën a international soo génnee ci mbedd bi heure tëdd nañ la jox ko tëdd soo yeewoo ñu jox la nga ndékki soo feebaree ñu faj la. te ñoom amuñu Europe fii amul gaz fi ma nekk nii amul gaz amul pétrole neige ak rek a fi am ni ngi nii blé amul Sénégal tubaab bi ñëw na nax ñu nañu blé du sax Sénégal comme du fa sax te yooyu yëpp du dëgg Sëriñ Sall wan wan nañu ko ak xel kom Sénégal lu fa waaye bëgg bay dina ko fa bay lu fa waaye bëgg bay dina ko fa bay mais dañu nax suñu dirigeant yi mel ni ay statut comme ñu amul xel mais ay dof daf jégal ma ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf waaye nag bul bul wootee sama fa moom fiis bul bul woo sénégalais yi naa leen génn leen ci mbedd mi nag sénégalais yi am nañ instrument boo xam ne lu ñu bëgg a faj mën nañu ko faj mooy seen carte waaye woote ci nañ génn jël noona non non faut pas appeler ça quoi du noonu Sénégal am na ñaari alternance Abdou juuf keroog bi ko Ablaye Wade di di daaneel en 2000 ak Abdou Diouf amoon na pouvoir yépp mais carte ay fal Macky Sall mi bi muy daaneel Ablaye Wade en 2012 amoon na Ablaye amoon na tous les moyens y compris les moyens de l'État te teewul Macky Sall gagné ko kon Sénégal ku bu nu woote naan nan daje ci ay mbedd préparer leen seeni carte bu élection ñëwee ngeen choisir ki leen neex ñun on a une solution pour changer nos pouvoirs la mooy wate ji mais du ay dajaloo ci ay mbedd ndajale xanaa amu leen place ak wala liggéeyu leen man nga bis bu ne nga naan nan daje ci mbedd bu kenn génn ci mbedd téye leen seenu carte su watee jotee ngeen seet li leen doy ngeen dugg ca loolu kay doy na sëkk aw ya xeex bi léegi nekkatul ak fital parce que bu fekkoon ay doole yooyu ay fital ay xeej mooy tax nga yor nguur dameel du xew yi teeñ du xew yi buur siin du fi jóg waaye nag nan nan yor sunuy carte rek ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. kooku Tall maa ngi lay woowee depuis Gabon. acca bismillah. maa ngi woy euh, di di am kontaan dugg ci émission bi. Euh, di kontaan bu baax ci sa dëggu. Mhm. Euh, te xam ne yow intérêt Sénégal rek moo la intéressé. Mhm. ndax ba nga dalee di wax ba léegi. Mhm. li ngay wax daal mosoo ci dellu ginnaaw. te yow luy jëmale Sénégal kanam rek moo la tax a jóg. faroo kenn mais dëgg dëgg mhm. du rombi noppi déedéet ndax il faut nit ñi di wax dëgg mhm. euh, sa auditeur bi mujjee génn léegi mhm. ah, ku baax la ndax sa mbokk la waaye waaye dafa dafa dafa dàq ginaar waxaale soxlaam ndax bu taxawee ci Sénégal ne Macky Sall dictateur la te nga gis Sénégal tey comme ni nga ko waxee sànq chroniqueur yi nga xamante ni dañoo euh, dañoo transformé seen euh, ay journalistes yi nga xaman télé yi nga xam ne dañoo transformé seen télé. Mhm. ay télé opposant mhm. taxaw guddeeg bëccëg di xas nguur gi te doo mës a dégg mukk mhm. président de la république def lu baax ñu wax ko. Macky Sall bu doon dictateur tey télé yi nekk Sénégal yëpp lay tëj. ndax bis bu nekk ñuy wax lu leen neex di saaga président di xas président kàddu yu ñaaw yu nekk ñu jël ko di ko teg ci ci ndoddu président. te président kat biti Sénégal ñun ñu nekk bitim réew ñun ñoo xam valeur président de la république. Mhm. ndax barki démb Ndiaye la dem Russie te li ko yóbbu woon Russie du problème Sénégal moo ko yóbbu problème Afrique moo ko yóbbu. Mhm. problème adduna bi moo ko yóbbu. Mhm. Sénégal tey da ngay nit day taxaw di wax lu ko neex président saaga président le premier institution de notre pays dagg ay ndey saaga te kenn du ko wax dara kooku du dictateur si Macky Sall dictateur en mois de mars. Ah, man de li mën a muñ man de li mën a muñ du ma muñ. voilà man léegi nag. man li ma Sall mën a euh. muñ. mënu euh. genn wàll gi sax du ma ko muñ man. wallahi te ku man bu ma yoroon réew mi képp ku ma saaga bu soobee yàlla di nga seen kër. voilà léegi ñi ñi ñi ñi ñi di saaga guddi ak bëccëg président di wax lu leen neex te benn problème du ci am ñu taxaw ñaanal kii dictateur la te en plus barki Demba Ndiaye li xew Genève. ñoom ñi nekkoon fii di yuuxu naan wéy Macky Sall dafa bëgg dooleel goo jigéen ci biir réew mi mais pour pourquoi waxuñu ci keroog Genève mennum Macky Sall mennum mennum Sénégal ak Libye ñoo taxaw ñu ne. mbirum góor jigéen kenn du ko kenn du ko légaliser mais doo leen ci dégg duñ ko wax. non parce que fond de commerce lañ ko def. loolu naa affaire naa fekk góor jigéen fond de commerce la Macky Sall xam nga ñun suñu ustaas yi léegi daanaka góor jigéen moom daf leen arrangé. voilà ndax daraa ngi ciy génn. duñ ko wax Sénégal lank na ko moog Libi. wala ba mu jógee France. mais doo dégg ñu wax ko dañ ko waroon teeru. Ah. yéen Macky Sall li mu wax fii Obama wax ko Trudeau. Eh. def eh. dogal ko barki dem boo Ndiaye war ngeen a ba mbirum góor jigéen la te lambi beneen ah. beneen fond de commerce bi yàqu na de. voilà Macky Sall tey buñ ko buñ ko bëggoon ormal buñ ko bëggoon ormal ba mu jógee Russie ñëwaat dañ ko waroon teeru dañu teeru. te xam na mission bi mu. Ah, moom kay pour toute l'Afrique waaw. ba mu jógee France ñëwaat keroog barki Dembo Ndiaye dañ ko waroon teeru ni ñuy ni ñu félicité Gana Gueye ñu félicité ñu jóg taxaw wax devant tout le peuple sénégalais mais Sénégal li fa am mooy affaire naafaq moo fa léegi dañoo manipuler jeunesse ba nga xamante ni tey kenn mënatul wax. mais yenn jeunes yi rek la ñuy manipuler jeunes yi seen ba yar tanu yeewu kenn mënu leen a manipuler de. on peut pas les manipuler. am na ci am na ci ñoo xam ne kenn mënu yi nga xamoon yi nga xamoon ne tey bëggu yoon Macky Sall tey ñu ngi bëgg Macky Sall ndax dëgg bi nga xamante ni Macky Sall mu ngi koy dox. donc euh, pour ne pas monopoliser la parole di la nuyu bu baax di kontaan di wax rek yal na yàlla def jàmm Sénégal te Sénégal jàmm rek moo fay am. gis nga général Moussa Fall bi ngay wax noonu. ñi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi nekk tur di ko yuuxu guddeeg bëccëg dañ ko ragal xam nga lu ñu ko ragalee parce que dañaa xam ne dafa yor seen i dossier te yàgg-yàgg da koy génne Sénégal n'importe qui du fa nekk autorité Moussa Fall du caaxaan moo ko indi fu mu nekk waaw yàlla ak xarañteem ak xam-xamam moo ko indi fu mu nekk. Mm. te bu soobee yàlla lépp li nga xamante dina ko war a dina war ko def dañu taxaw di saaga ay magistrat di taxaw di saaga nos première institution te ñooñu tey ñoo fondé ñun suñu suñu état état Sénégal tey bu amee a plus de trois cent et quelques ñu ngi bu tijji boo demee sàmme dafa fees del mais saa yoo dégg ñuy coow rek xamal ne politicien lañ bëgg a jàpp wala politicien moo am problème ak yoon Sénégal yi dëkku jàmm la ñuy ñaan rek yàlla na yàlla def jàmm Sénégal mission bi nga xamante ni yor nga ko nga continuer ko nous sommes derrière toi et nous t'accompagnons yàlla yaa def jàmm jërëjëf. amiin amiin jërëjëf jërëjëf. man nag sénégalais dëgg-dëgg da daba boo koy seet kenn xamul luñ bëgg ko parce que fii da fii gis nit koo xamante ni day def lu ñuy wengam ñu yóbbu ko justice mu ni justice amul waaye yow wax dëgg yàlla am na loolu justice yaa ko defal sa bopp justice defuloo ko mais justice euh, man daal vraiment xeeb gi ko xeeb fii ci réew mi ak man ni ma leen xamee. am ciy bokk am ciy xarit ñuy nit ñu crédible di ay vrai noble di ay jaamukati yàlla am na ci ñu defar ay juma <laughs> am na ci ñoo xëy lu ñu am dugal ci yàlla am na ci ñu yor ay daara yàlla xam na ko ñoo xëy doo leen dégg ci dara yor ak njaboot yor soxna yori doom nga bëgg a taxaw ci réew mi di leen xas mais nag état bi mayee nit di xas as gor fii di ko wax te ñu xam ko xam identité ba pare ba ko état bi lu ñu dal yow la vous êtes trop faible vous êtes trop faible et vous laissez faire et vous regretterez incha allah ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. Euh, Badara Ndiaye cité Icotaf 1 Pikine. Badara Ndiaye. waaw. Aca Ndiaye bisimilah. ñu ngi rafetlu sëñ Tall sa waxtaan. Mhm. dëgg ngay wax dëgg la yàlla bëgg. Mhm. ñu ngi koy rafetlu. lenn la xel mënul nangu. Mhm. nga nekk extérieur. Mhm. di woote dëkk bu tàkk génn mhm. leen aw leen nii def leen fii ñii kan la ñu yàpp. Ah, la ñu yàpp kay. ñàkk fayda la ñu def. wax dëgg yàlla seen réew. te dama lay wax gis nga koo ci jël benn par benn individuellement. c'est des poltrons c'est ay tapet lañu. ay tapet lañu kay. c'est des dañu yàpp nit ñi man sama doom du marche. sama kër sama doomu rakk du marche sama doomu mag du marche kenn du génn état nag il est grand temps mu instaurer autorité. autorité effectivement. parents yu bëri yu bàyyi seen doom yuy lambar lambari su mel ni c'est les irresponsables man dooma yaakaar yàpp ma. yàpp wax dëgg yàlla. parent bu nekk bu jëloon responsabilité am sa doom sa biir kër ñii du ñu am. ah ñoom kat daal nañ dañoo nangu seeni doom ci ñoom. non te muy dëgg quoi. mel ni dañoo tayle seeni doom mel ni dañ koo tëj est-ce que lii sax du ay xërëm. non am na intellectuel buy wax ni la vérité a toujours existé seul le mensonge a été créé. dëgg la. non dëgg mooy dëgg. il est grand temps nag que l' état prenne ses responsabilités. Mhm. ñii buñ ñu fontoo. Mhm. une infime minorité lañu. Mhm. ñi mag ci ñoom muy seen groupe boobu. ay mag yoo xam ne vraiment wax seen seen njaboot waxuñu ak ñoom. ñii c' est des arrivistes yu nga xam ne ñi dañoo mën a yor dara. mais non boo waxee ne lu baax kenn lu ko wax. ku la defal lu baax doo ko wax. wax dëgg ya léegi de loolu lañ bëgg a tere wax def ñëpp na ci sàng man balaa may bëgg a dee rek ñu taxaw naan Macky Sall Macron patati patata. waaw sëñ Tall dama lay wax ne. man j'ai travaillé dans la dans l' armée française comme personnel civil. mais ñun en tant que syndicat ñun bu ñuy wax. patron wu armée française yi du ñu wax. billahi wallahi taala ñun ñun bu ñu nekk tubaab bi bu ñuy wax ñoom du ñu wax. moo tax su ma déggee ñu naan non Sall valet de la France. patati patata. non ñoom ñoom ñooy ay vale ñoom ñoom foofu lañ ñoom ñoo dul dara mais ñun dafa nga ne de vingt-sept ans laa wax. ab tubaab dañ cee waxati dara. man su may wax tubaab du wax. ñun tubaab yi yabuñu ah ba ma fa nekkee ab tubaab yomb. c'est pas vrai wax la neex. day wax lu la neex moom parce que ñu ngi xam ne. ba ma fa nekkee tubaab yomb waxuma ak suñu président. dañ ñu respecté tubaab yi dañ ñu respecté ñun. Mhm. mais Sénégal yi bëri wax. ay xale yoo xam ne jéemuñu xam fi ñuy teg seen tànk am kilifa nee na nag sëñ bu mag bi wax na ko billahi fii ku fi yaruwul doo yor dara te ku yaruwul lu leer laa lay wax gis nga fii ku fi yaruwul àddina dina la yar te ku àddina yarul bàmmeel dina la yar te ku bàmmeel yar di nga yarul asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf waay xam nga nag sunu réew mi ñun des fois sax da ngay dégg loo xam ne daba dafa mel ni sénégalais bi koy wax sax daf ñu saaga parce que bu ñu demee ba suñ njiit ñu naan c'est le valet de de de la France Macky Sall n'a rien à avec la France mais yéen bu ngeen jëloon réew mi ngeen defee ni da ngeen di xëy ni France pare nañ ci dangeen di wax rek da ngeen xamut luy état fii ku fi nekk président di nga wax ak France France mënatunoo tàggoo xanaa kay mu gañaa gañaa mu jox ñu cër nu jox ko cër mais yowul aw làkkam ngay làkk ay diplôme am nga yor ku circulation bi sax bu France la sa lépp France la nooy nooy tàggoog dooy tàggoog France France kay fexeel mu jox la cër nga jox ko cër rek mais ay France yooyu ñu koy wax sax gëmuñu ko yow kay boo booy lakk boo naan France dégage waxee ko neneen France mbalaya sax moo gën waaye France dégage bàyyil baatu tubaabam boobu dégage jooju France ko moom de kon dégageegul sa école yi France ngay jàng programme France ngay jàng suñu discours yi français lañ koy def soog ko def wolof ah mag nag du xam ne naa xam di ca dugg eh, di jël sa président di ko tuutal naan bu demee ci Macron lii lay def ah dégg nga maa ngi dégg benn kilifa boobu lu ma bett la sax mu naan Macky daa dem ci Poutine mu ne ko sa sa bopp bi daa feesu defe nga ni président Poutine dina waxe dina jàkkaarlook Macky Sall naan ko sa sa bopp bi dara newu ci xam nga loolu aussi yooyu wax aussi man vraiment man daal ñenn ñi damaa defen dañ leen a jox saafara parce que li ñuy wax dootu waxi nit dootu waxi nit wax dëgg yàlla ñun France yabunu yéen ñi xamul français xamu leen France yéen la français yëpp yéen la français yëpp man jote naa ak ay tubaab France ba tey ay ñetti yoon tubaab mësuma yëpp te li na ci man moo na ci Macky Sall mais da ngay dégg sénégalais buy taxaw naan président Macky Sall day raam ci kanam mais xam nga yooyu tuutal sa bopp weesuwul loolu. man sama président bu doon raamal France sax du ma ko wax parce que sa gàcce la ci man sama président di sukkal France nga di ko wax defe ni dara nga di wër di fen rek guddeeg bëccëg état bi du Sénégal yéen a ngi seetaan loo xamante ni yéen xamu leen ko xamu leen li muy de li mu def ci réew mi actuellement xamu leen fi yàq gi toll te billahi si mu ne les arrêtez pas on va avoir de vrais problème parce que maa tey ji ne ci réew mi fokk mu dañ maa tey mënoo su cee lu ma neex laa fiy def lu ma neex laa fiy wax <laughs> ah, loolu day bu ko nguur gi nangoo man dëgg-dëgg nag jaaxle naa tamande lii man alaaji taal mii su ma yoroon baat ci réew mi dañ na bu yàgg billaahi dañ na bu yàgg a yàgg a yàgg que man ab dof aw yat laay wut bu may dem ci moom de ku yorug fital no booy dem ci moom doo yoru fital waaw ah? am na yoo xam ne dafa ëpp nag dafa ëpp di saaga sunu institution yi saaga sunuy kilifa saaga sunuy sëriñ man ba dabba gis naa ci kii bi sax fàtte woon naa ko loo xëy man xaw na maa def problème sax waa ji daan saaga Macky Sall ca France ñu ni Macky Sall da ko recevoir mais Macky Sall warut na kooku xaw ma ku ko def mais tegoo ko fenn pour lan nga koy recevoir pour lan ngay recevoir un insulteur bon je l'ai dénoncé quand j'ai aperçu des insulteurs des assassins ñu yóbbul leen sëñ Mountakha Bachir je l'ai dénoncé ici ngay jël un insulteur di di saaga ndey président xaw ma ku defi pexe ba président recevoir ko mais tooñ nga ma man man Alaaji Taal man tooñ nga ma je ne suis pas d' accord je suis loin de être d' accord man ñooñu nit dama leen a bëgg a jege sax ba image image yu président dafa war a jege ñooñu des insulteurs mais nag nguur yi léegi moom lu ne nga ca biir tu ne peux pas comprendre parce que politiciens seeni gal yooyu daal mais c' est grave mais daba ah doo ma ni sa mbubb mu rafet mi ba lii nag Ablaye Mbaye peexa ma ko jox xam nga géwal <laughs> gars yi xamuñu géwal boo demee peex ci ngay xam la valeur d'un griot Ablaye bi ma demee maa ngi ko fekk ca tool ya muy rooj aka falu aka faru boo duggee ci wana fekk fa ñeenti naari góor tabarkalla mu nga tëj aw jiwoom di bay ay toolam di dimbali ay mbokkam am na mbokkam moom fekk ni ma Ablaye day man la yóbbu Màkka ren am na mbokkam moom fekk ni ma Ablaye sama kër lépp moo ko yor tabaski ba ma ko gëjee jënd ak léegi xaw xaw ma kañ la ba ma nee dara ba léegi moo ma koy jëndal loolu mooy géwél ama ne lii la aussi beneen histoire u géwél yi sant mbuub te dëkk njukki ki ma jàngal histoire kajoor li ci ëpp di ma mbenn mbuub fa la dëkk njukki la ñu dëkkoon keroog bi maa jooju déggeen kodd Lat Joor sonalee tubaab bi ci euh, tabaxum semaine de fer mi tubaab bi wax ak maajooju dégg ko ni ko dañ la yóbbu pootu di la fay junni par weer nga bàyyi Lat Joor nu def ko dameel ndax mu siñeel nu géwal yow yu sant mbuub dëkk njukki keroog la ñu gedd ni dañuy dem njaay jàmba ñaan fekk fa ñoxor bàyyi diggéen ni ko gedd na njukki dagal nuy kër ak i tool keroog la ñu tuxu bàyyi fari këtëng keroog bi sàmbalaw bi fekkee alburi de gille ñuy xeex bàyyi fari këtëng di jiinum dëndëm romb alburi mu ne ko ah waa bay Fary Kitten yow ñi lay ñi ngay ñi lay aw sori nañ la di mu ne ko tanoor man tey laay mujj a dégg takk leen foofa la des wala la griyo géwal géeram da day am euh, jabaram day mucc yorut lu mu ngénte mu jox ko ko jox ko dara ni ko bés ba bu ma la wooyee may ma wala la griot am ko nag yombut ndax foog nga am histoire foog nga am lu ñu la waxal foog nga am loo def waaye ku defut dara waxut dara tabaxut dara wax dëgg yàlla boo amee géwal it bari du la bareel njariñ kon géwal moom tabar fakàlla Ablaye merci beaucoup man nag daba daba dama am défaut de lu ma waay defal ma wax ko lu baax lu ma gisit dinaa ko wax loolooy sama problème ak waa Sénégal léegi ndax dafa am ñooñ moom li ñu bëgg mooy ki ma bañ daal bu mu baax mukk bu mu baax lee dara yow nag bu la ne booyee boo nga dem toogi de alaaji moom day wax de <laughs> daba ñun kenn mënuñu te wax personne man man yàlla képp mu mën a tee wax xanaa mu tëj gémmiñ gi waaw xam nga ni di jàpp ay nit naa leen xam nañ seeni i di leen lakk seen kër ak bu affaire bi jógaatee dinañ la fekk fi nga ne rey la yéen da ngeen a yor bakkani nit ñi am da ngeen defee nit ñi dañ leen a préparé wu ils sont prêts comme vous hein ils sont comme vous man Sénégal fii ne bu bu doon xeex pour défendre boppam ma gàddu fital volontaire laay doon billaahi wallaahi tàllaay alors ay sagari nit bëgg a jóg naa leen bu leen wax dinañ wax na waaw ah, dabba nu yem fii rek dabba nag suba xam nga lu ma bëgg nu bayee te bañ koo caaxaane parce que li ma gis ak li ma dégg ak fi sama xam-xam su suñu bayut lu bari lu nu lekk dinañu ami jafe-jafe kilo ceeb mille francs la jëm de dégg ma la bu baax kilo ceeb mille francs la jëm bu nu amee ñam bi am mboq am ñebbe lu bari nu bay ko ci lu matul dund c'est c'est ça la sécurité pour le Sénégal xam naa bu subaa nag nu ñëw gën koo développé bu neexee yàlla kon nag ñuy ziar bu baax sunu bokk yépp rek eh, di nuyu nag bu baax waa jaxaaw siin royaume du Sine bépp di fàttaliku waat bu baax suñu xarit ba Mayekoor Diouf colonel Mayekoor juuf nga xam ni këram lañ daan dal ren bi ñu fa demee dëgg-dëgg xaw naa diis ci nun di nuyu ak a bu baax sëriñ fàllu Mbacké transitaire ak soxnaam soxna Henriette juuf di sëtu Mayekoor juuf nga xam ni teraanga ju nekk daf koy def ci ci ci ci bis boobu bisu maamam di nuyu aussi abu Émile Diouf architecte xam naa nag euh, barabu Coumba Ndoffène fa mag ba bu soobee yàlla dina ko defaraat ba mu mel na mu war a mel ndax architecte la te maamam moomu nag mooy maami royaume du Sine yépp nag vraiment yal na yàlla sottal lépp kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa fi amaani la jërë ngeen jëf